asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon ah, niñ koy defee rek à chaque fois nee naa leen wasaare ñi ngeen soxla wax dëgg yàlla bu leen ko cliquer rek ngeen dem seeti tey nag ñoom am contentement bu baax a baax ñëw nag ah, seet si ko mu nekk koo xam te ni mu ko mu nekk koo xam te ni ndaanaan la bëri nag champion bu nekk ndax ah, doo tudd mbër mi te neewoo moo diw ak diw bëri nañ tàkkusaan bu nekk nag am na ndax tey ku démb ku bëri démb jóob rek kooku daj dëpp jeex tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb làmb du muy doxee ci palmarès am ci carrière ci jaar-jaaram mu ci nga xamante ne moom mooy Mbaye Diouf bu Bawol Mbaye Diouf bu àdduna ñu ñëw fekk fi ko nag fekk ah, sëriñ bi toog muy Nafi ñu koy ziar bu baax a baax di ko bégee di ko nuyu bu baax a baax a ah dañuy jox Mbaye Diouf mu nuyoo ñu tàbbale waxtaan bi champion maa ngi lay nuyoo. waaw Fama maa ngi lay fay. di nuyu Sénégal yëpp. mbokki àdduna bi yëpp di nuyu ñi nga xamante nii nag ñooy samay supporter ak sama mbokk yi daal di nuyu maire Nafi mi nga xam ne moom laa fekk si fii tey ak uh, di nuyu Nafi di nuyu maire Anta Gueye mi nga xam ne moom laa fekk si fii tey ak Pakamu parce que fii mooy Dakar Plateau fii moom fi la Ndakaaru yem booy ñëw Ndakaaru ba yegg si fii fi ngay yaa ma gën a xam di nuyu Sénégal yëpp daal. ci kattanu yàlla di nuyu tamit su may liggéeyee muy ñoom Amet ak ñoom euh, Tarik ak ñoom euh, Firial maa ngi nuyu ñëpp daal ñu may liggéeyal ñëpp tamit maa ngi di nuyu quoi di nuyu mécaniciens yëpp parce que ci ñoom laa ñëw foofu ñoo bokk fu ñu nekk quoi man ak ñoom quoi maa ngi nuyu ñëpp daal ci kattanu yàlla. nuyoo bi am na solo Baye Diouf bu boxol Baye Diouf euh, ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ndax nee naa lay waxtaan ak yow day parce que ñëpp xam nañ ni euh, da nga nekk ci biir làmb ba pare nekk làmb loog di ko dund euh, nga nekk champion boo xamante ne bëri nga fi tàkkusaan bu nekk tey ba mu doon wax Baye Diouf moom mooy parce que ñi lay seetaan xam nañ Baye Diouf mais fu mu juddoo fu mu cosaanoo lan nga may wax waaw Mbaye Diouf Mbaye la nit la comme nit ñi rek juddoo Bawol dëkk Bawol màggee Bawol mhm. waaw ñëw Ndakaaru Euh, nekk ci bool bool yi comme samay mbokk yi rek di liggéey euh, jëlu woon di soo nekk mbër mais nag xam nga mën nga bañ ne lii ngay def mais après la koy def loo suñu borom lay doon quoi ci kattanu yàlla. Mm-hmm. Mbadou fan nga juddoo. ngi juddoo Réfan. Mm-hmm. fa laa juddoo. Réfan fa nga juddoo. fa nga defee sa xale. fa laa defee sama xale waaw. Mm-hmm. mën nañoo expliquer euh, ba nga nekkee Réfan ak sa xale nu mu demee foofu. waaw nekk fa comme ni xale yi def rek xam nga xale moom boo nekkee xale nekk ci dëkk ak foo mën a nekk foo mën a juddoo di nga nekk di foo di ree di kaf di ne di def affaire xale ba ni ngay nekk mag bàyyi ko rek loolu la rek. Mhm. Euh, jàng nee ko. waaw jàng naa alxuraan laa jàng nag alxuraan laa jàng soriwuma ci. Mhm. alxuraan xam nga dama nekkoon sama kër papa. sama papa jë am ñaari doom yu góor muy man ak sama mag yàlla na ko yàlla yërëm sama mag bi xam nga ñu nekk ay xale te boobu xam naa ne paa bi loxoom jotul ginnaawam xam loolu moo dolee tax am man nekk ci kër gi nag di liggéey liggéeyu kër gi quoi man maa doon liggéey liggéeyu kër gi quoi li ci ëpp. loolu moo tax mënu ma woon a dem école di ko booleek liggéeyu kër gi di yor jur yeeg yooyu mun loolu moo tax quoi mais du leneen quoi. après Euh, yow Refane euh, bëri mun naa ne Refane la ma feeñoo parce que dañu amoon benn mbër champion boo xamante nii man sama papa moo doon toog ci cumikaay muy booy Malaw champion bu mag nga xam ne benn défaite la mos sa am mm, bëri na bawol yëpp bëri na ak gaa yu bëree bëree bëri ñoom Asmba yi ay ñoom aj mandongin gaa yëpp bëri na ak ñoom xam nañ ko moom mais boobu xale laa quoi xale boobu am na loolu bu ñu ko doon def ne bi dañuy woo xele boo xam ne xamul dara boobu mu sama papa dal ma doon jël yóbbu ma maa ko doon xool may gis mu nekk mbër di bëre ji di ñëw di andi ay victoire affaire bi neex nag mais boobu fekkul ma nekk mbër mais mën naa ne loolu ci ci li ma gën a xaw a poussé ma nekk mbër tamit ci la bokk parce que daf ma neexoon boobu quoi moom bi muy bëre di ñëw di indi victoire dama doon kontaan quoi. boobu yow yëpp reefaan la. Ah, la mais boobu xale laa ko xale bu ndaw sax. Mm-hmm. après nga nekk reefaan lan moo la jëlee reefaan. waaw reefaan li ma fa jëlee rek mooy xale bu góor nekk naa xale bu góor war a dimbali maire bi jàppale ko ak paa bi ci laa ñëwee ndakaaru quoi ma ne comme bawol ni ñuy def rek xam nga ñoom dañuy teel a ñëw ndakaaru quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi ma ñëw Dakar bi ma ñëwee Dakar nag commencé liggéey. di am ay di am ay weccet bi ma ñëwee ndakaaru nag. maa ngi doon def madame laa doon def di jaay ay mbuus fii fi laa yaroo fi ko côté bu ne nag noonu la demee quoi. après ngay jaay def ambila waaw après ambila bi nag ma toog ba mu kii daal ma ne ah man daal dama bëgg nekk mbër quoi mais avant may wax loolu maa ngi doon dem fii kusum di xool gars yi ni ñuy entraîné ñuy entraîné may xool quoi gis ni ñuy entraîné parce que boobu mënu ma entraîné mais daf ma doon neex quoi après nag may dem ci gars yi di entraîner ak ñoom di def ay cinq ay dix boo ni ma koy maîtriser quoi commencé nag mbër gi dugg ma nag ma ne xaaral mu commencé nag entraîner pour nekk mbër. après say parents nan lañ def ba nga leen waxee ne instant bi comme que maa ngi ci ambulance mais dama bëgg bëgg damaa bëggaat beneen bu gën a yomb wala beneen bu gën a xewul bi gën a yokk ci làmb ñoom après nan lañ accueillir loolu. non xam nga man dama doon nekk fii comme période nawet bu jotee dañ doon nawet yi. mais paa bi am na moment boo xamante ne nii bi ma commencé nekk mbër dama ko ne du ma nawet si quoi mu ne ma da ngay nawet suur boobu sax daf ma jël si dañ ma jël si ma ñibbi dem dem village yaa ngi dégg quatre-vingt-quinze après quatre quinze bi nag bi ma jógee nawet ba ba quatre-vingt-quinze bi jeex muy quatre ci laa ñëw nag mu dégg na nag maa ngi bëre mbapat. Mhm. wax nga ko wax nga fu am solo mu dégg ne yaa ngi bëri mbapat mais après papa say parents bàyyi nañ la nga bëri. waaw xam nga paa bi daf ma bëgg. te aussi gis na ne doon na ma defloo yooyu yëpp ci combat jàmbur gis na ne kii su bëree tamit ah dama koy bàyyi mu bëri rek noonu la demee mère bi tamit la même chose parce que boo amee parent yoo xam ne dañu baax amuñu problème mosuñoo xuloo mosuñoo xeex te yow tamit ngay roy ci ñoom rek nga mën a def. lu ñu la tere yenn yi parce que xam nañ ne li ngay dugg am na yoo xam ne boo ci duggee mooy loolu quoi dañ lay bàyyi nga dugg ci quoi parce que xam nañ ne jàmm moo ciy am quoi. sa mbapat fan nga ko defee ak fan nga toj ak man fi ma toj ci mbapat soxna si dafa bëri. waaw foo toj. Sénégal. Sénégal comme bu ma la nee Sénégal li ma mbapat dafa bëri dama mbapat lu bëree bari mbapat naa ba mbapat ci biir ndox mi muy gore. Hmm. waaw kay. na mbapatee ci biir ndox mi. waaw parce gore boo fay dem ci ndox ngay jaar. boo fa jógee booy ñibbisi ci ndox ngay jaar. Uh-huh. Hmm. nga fa bëree mbapat foofu. waaw xam nga dañoo nekk fii Medina ñu dégg ne Tyson dafa organiser benn mbapat gore. Mohamed Ndao Tyson Mohamed Ndao Tyson bii li ma la c'était à 97 mu organiser mbapat bi. bu ñu ko organisé ñu nekk ay booy ñu ne nañ leen dem babat bi may dem nag yoruma dërëm yoru kenn yorul ñaar dërëm paas sax yoruñu ko ñu dem fii ni ci ri euh, euh, tolbiyaak bi suñu benn grand may ñu téeméer ñu del taxi dem bi ñu demee après boobu salut bi du du ñu paas quoi ci mbabat bi noonu booy dem ci mbabat bi doo paas après nag ñu dem ci mbabat bi ma ànd ak gars yi bi ñu àndee ak gars yi tamit ma bindu le ma bindu luur Pape Balla Gaye moo doon bind. Père Balla moo doon bind. boobu ma bindu luur ma bindu lu lese la ma bind mais man luur laa ko noonu laay bind quoi fekk naa fa mbër yëpp. ay ñoom Koli Faye tey seen numéro de ay ñoom Paate Balde yi gars yi mbër yëpp fa nekkoon bari na woon ay mbër. 70 la ñu woon daal mbër yi. léegi après yow ah, ko jël. waaw mbapat bi dañ ko bëree vendredi samedi dimanche. Ah, muy trois jours ma qualifié. vendredi vendredi dama dama ñëw dama sur mbapat bi dama bëree. daan ñaar Paate Balde laa njëkk a daan. waaw mhm. daan fa capitaine PK. léegi mooy waaw léegi bi bi ma bi mu demoon Pape Balla Gaye mu ne ma mu ñu ngi doog a dugg ci luur yi quoi ma ne ko man bi mu binduwuma laissé poids luur laay bindu après nag ci la ñu commencé luur bi ma dugg ci luur bi daan fa qualifié daan fa Kor Ndiak mhm. daan fa Ousmane Diop Ousmane Diop nag bi ma koy daan final laa ko daan parce que dañuy bëre bu ñu bëree boo qualifié da ngay ñibbi si vendredi samedi dimanche samedi bi dañu dem ma qualifié daan Tyson numéro 2 deux fois laa ko daan. Tyson numéro waaw deux fois laa ko daan après nag ci laa qualifié parce dama ko daan ñu bañ ñu ne ma da ngeen di bëriwaat ma bëriwaat ak moom daan ko ci laa qualifié final Ousmane Diop tamit nekk côté bale di di ràññee côté bale mooy rañee côté bi mu qualifié final muy dimanche. ñu moom mu ànd ak gàngooram joge caaro yi gaal lañu ñu luye sax. ci ndox mi lañ gaare ay lébu lañ ay lébu lañ mhm. gaar lañ luyee après man may bawol bawol waaw man dama sama tànk. ma tànk laa luy ànd ak sama waa kër waa euh, Risset Angle Corniche ñoom Sori ñoom Issa Diakhaté ñoom Assane booy ñoom Samba Ka ñooñu laa àndaloon sama gars yi laa àndaloon ci mbapat bi. après bi ñu ñëwee ak ñu ki nga xam ne sama grand la Bada John ay ñoom Modou Diagne ñooñu ñëpp dama ànd ak ñoom ñi ma toppoon bari nañ trop léegi ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu war a bëre final bi man ak Ousmane Diop Ousmane Diop xam nga ne daanaan la bërekat la mais arbitre dafa soufflé mu roñ ma dëbb ma col ma ne nañ dem teg ko mboot ñu daanu ci ndox mi lañ daanu sax yàlla xam na ko ma jël final bi. waaw parce que Tyson moo ko tegoon te mu ngi fa woon ñëpp a ngi fa woon. final bi lan lañ bu ma juumul 100000 lañ tegoon ak ceeb. 100000 mhm, lañ tegoon ak ceeb. Mhm. Mhm. Euh, bëri moom mbapatam dama ko toj. Hmm, boobu ñan ñan nga fa daan fekk. parce que Xaadim Ndiaye dama ko daan fekk. benn bu caaro yi. dama ko daan fekk non soxna si man dama leen damaa toj. mais neewoo ma ni. da nga xaadim Ndiaye nañ kay. loolu yëpp nag xaadim bëri nañ. comment xaadim dama bëre ak Nana daan Xuma yaa ngi dégg daan benn gain bu ñuy wax gaynde bu dëkk mbuur daan usmaan Diop. encore nga daanaat Ousmane Diop. waaw ma daanaat ko encore caaro yi Lamsaar ko ñu ñoom Tidiane fey ci bi garabu ron bi foofu noonu la mbabet bu doon am xaadim Ndiaye des ma fekk ko fi mu nekk fi mu taxaw di defar ngémbam fa laa ko fekk. grand yi ma àndal ñoom Boy Malo ñoo ma yóbbu woon ak per Ndiaw Sarr ak ñoom mbay Ndewaan ñu ne ma ndax ñeme nga xaadim parce que boobu booy laa mais maa ngi lukkeeku ma ne leen ñime naa ko kay ñu ne ma dëkk ko ma dem fekk ko ci langam ne ko grand kaay ñu bëre mu ne ma booy da nga dof ma ne ko kaay ñu bëre kaay ma daan la mu pëtam pëtami ñëw ngéem bu gaaw ngéem bu ñëw mais bi mu ngéem boo ñëw dafa ma dëbb col di ma plaqué ma def demi flexion mu jàll. ba képp tànk bi rek bott ko buddi ko. léegi bi ma ko buddee ba ba taxaw nag après ñoom euh, Backling City ak As Mbaye ak Maxime Bergane ñoo jàpp. ne ma kii moom moom mbabat bi te fii koñam la. ñoom ñoo si jàpp. waaw mais parce que nee na ñoom moom moom mbabat bi parce que fii koñam la. léegi kon nga bañ koo daan daal. waaw kon ñoom ñoo ko wàccee sama kaw. man kay li ma père Maxi ak kan. père Maxi ak Maxi Maxi Mbergane la As Mbaye ak Backling City. ñu wàccee ko sa kaw. parce que Backling City moo moo doon arbitré. mais ñoom ñu ngi woon ci ci côté langue gi noonu rek dañuy ci nekk ci géew bi ko xam arbitre ci géew bi ngay nekk waaw ah, noonu la demee woon. mais à part ay jom Karim am na ñoo xam nga mhm. euh, waaw xam nga xam nga man euh, yal na ko yàlla rek Mama Lamine Sarr. Mama Lamine Sarr xam naa xamoo ko. Mhm. qualification drapeau chef de l' état kenn mënu ko woon daan. booy Diouf mii xam na ma ma Lamine Sarr. kii dina waaw kooku kenn mosu ko mën daan. Mhm. mais dama ko daan mais dama ko daan. dama ko daan ah dama ko daan ba pare mu ne ma booy yow foo dëkk ma ne ko Bawol laa dëkk mu ne Bawol mënut am ku mën a bëree nii ma ne ko loolu nag moo tax toujours da ngeen di a mbir parce que mbër day jóge fu nekk war a mën a bëre mais yéen da ngeen di yàpp ne yéen rek a mën a bëre boo xoolee loolu dafa jàpp làmb mu nga xam ne léegi làmb ji ñi nga xam ne du ñuy séeréer ñoo ko téye làmb simple bi Euh, waaw Balla Gaye nag dajewuñu mbappat Modou Lo dajewuñu mbapat mais seetaan naa leen bu baax ku ci nekk seetaan naa la nga bëre mbapat mhm. waaw ñu mën a bëre trop di bëre bëre yu doy waar naqaree daan lool may gis sama bopp ci li ñuy bëre bu baax muy Modou Lo muy Balla ah loolu euh, benn parenthèse la parce que tamit mbappat wax dëgg yàlla dafa nekk loo xamante ni gars yi euh, boo ci duggee rek dina am leneen loo xamante ni dina la ko xaw a kii ndax boo gisee li nga wax yëpp ci mbappat ak ñi nga bëre ñi nga daan macha allah lutte avec frappe nga dugg ci ban année. waaw lutte avec frappe bu mën naa ne 98. 98 waaw 98 17 18 daal. 17 18 parce que première sama première combat a capitaine PK la. moom laa njëkk a bëral. ku ko tëggoon. oh xaw ma nag ki parce que boobu booy laa xam nga. Mhm. combat yooyu ñun duñu duñu boobu doo xam doo xam sa sa main du daw foofu quoi da ngay ñëw rek ñu ne la combat sa combat mooy combat yu ndaw yi rek sa combat taxaw na yow diw nga jël da ngay yàkkamtee jël avance bi pour dem bëre ji vingt mille francs lañ ma fayal. vingt waaw loo ci xam nga ne mënul dara. Mm-hmm. waaw man boobu amuru bëre bi moo ma neex parce que boobu bëree ngi ci man mais boobu bu ñu ma fayul woon sax ma bëre. boobu maa ngi nekkoon écurie Bawal. écurie Bawol mhm. foofu mhm. boobu yaa ña dafa nekkoon yéen mbër waaw boobu yal na ko yàlla yërëm ku mel ni Baye Daawul mu ngi fa woon ay Ndewaan ay Fallou Ngom ñu ngi fa woon ñu ngi woon foofu quoi mhm. nga bëri ak capitaine PK combat waaw capitaine PK daf ma duma du may métti la ma duma mais dama ko daan daf ma duma ma euh, paqueté ko sànni ko fële waaw dama mën a bëre moo tax. boo mënee bëre nekk ak ay ndaana ni bërekat mooy loolu rek. sama deuxième combat maak Alaaj Dia. ok ah, rakku Njuga Dia moom laa ci teg. ku boobu it boobu ba léegi xaw ma ko tegoon wallaahi. boobu kase ba xawoon na bari tuuti. moom daal kase ba moom kii yoon na quoi waaw xawoon na toog quoi parce que bi avance bi ñëwee kontaan naa trop quoi. waaw dama ko daan Demba Diop la woon. Puy dee Njaga Diop. Demba Diop. waaw ah, Pouy de bi ñuy bëre ak Ndiaga Diop maa bëre deux troisième bi maa ko bëre. Mhm. waaw. nga jëlaat kan. bi ma paree ci foog kooku dama jëlaat euh, mbay ju séeréer. vraiment yaa ko daan de. ko daan kay. maa ko daan ci combat Sallo non combat Boy Kayre Khadim Ndiaye. te boobu yëpp yaa ngi écrir Bawol. non non boobu bi may bi may daan ñooñu noonu. boobu maa ngi Mermoz. waaw parce que Bawol benn combat laa fa def. Mhm. Mhm. waaw ma dem écrit Mermoz waaw. fekk ñenn fay dem euh, maa ngi fa fekk Xaadim euh, Ndiaye fa la nekkoon sëriñ njaay fa la nekkoon. waaw fa la nekkoon waaw fa nekkoon. ay ñoom père Mor Fadam fa la nekkoon dafa doon ñëw ma koy gis. waaw ñoo ñëpp fa lañ nekkoon. ak père Farman Gueye. waaw parce que boobu li may wut xam naa ne pour ma am ko. il faut ma dox parce que bu fekkee ni da nga bëgg a mën a bëre doo nekk ci benn moment boo xamante ne il faut nga bëri dox liñ naan lu ku xamul ku ku dul toxu doo xam fi dekk neexe la rek mhm. parce boobu bëgg naa am bëre man bëgg naa bëre ne ci man te dem naa ba nga xam ne am na fu may dem foo xamante ne may xam ne ñii li may seet nekkul foofu loolu la ko après sa quatrième combat hmm, sama quatrième combat mu ngi nekk man ak euh, su ma juumul waaw Ndiaga Sarr Ndiaga Sarr bu waalo. Mhm. Mhm. combat bi ni waaw combat ba tamit Ndiaga Sarr daf ma dañu bëre maak moom pëtam pëtam ma song ko ma am ci ndam tamit. yow kon waaw. ok xam nga ñun ni ñu doon bëree làmb. parce que ñun dañ doon bëre année bi dañ doon bëre trois combats. ah ok booy parce que léegi la làmb mel nii rek mais ñun. suñuy jamono yi nga xam ne dañuy bëre dañuy bëre deuxième combat da doon bëre deuxième combat ci année bi trois fois looloo taxoon looloo taxoon nag looloo taxoon nag dangay dem ba da ngay roode ci bëre ba pare da xam bëre. moo tax kay say waaw man mënoon na maa gën a bari noonu combat sax parce que dafa am euh, année yoo xam ne ne bërewu ma. parce que 2000 waaw waaw d' accord d' accord ma jóge ci njagasaar waaw dama jóge ci njagasaar nag ñu jox ma semu ndaw bu pikin ndax semu bi ma koy daan dafa daan usaa daan gaa yu bëri te dafa mën a xeex di peese cent cinq kilos. man boobu maa ngi nekk quatre vingt six kilos. xam nga ñu jox ma ko coow li bari ñu naan semu ndaw semu ndaw mais boobu faas la ma fekk. ok njagasaar tamit faas la ma fekk. Mhm. boobu tamit nga dem faas ci géeb la gaaw waaw parce que boobu li may wut bi ma ko gisee foofu rek fa laa toog. muy faas. ñu nekk fa ak ñoom Père Mbaye Guèye ñoom Alsane Diakhaté ñoom Ibra Mbaye ak Jallo sama grand moom moom fa yóbbu. moom ma yóbbu Faas. Mhm. boobu yaa waaw waaw Ndiaga foofu laa ko daane. après euh, kan. après Semu Ndaw. Mhm. Mhm. après. Semu Ndaw bi ma ko daanee ba pare nag ci laa jël euh, jimboor yi. waaw loolu yëpp Faas la. ci laa jël daam su tamit. mais yëpp nan la demee écurie Fass bi nga nekk fa. waaw nga doon hmm. waaw xam nga ay waaw ay ay Rong Mbalax ay ñoom Giri. waaw ay ñoom Giri Bordeaux ay ñoom Oussa Sow. papa ah. neex rek parce que boobu làmb laay sentir sama bopp. waaw dama doon sentir làmb ci sama bopp. bu dee entraînement dama doon sentir dama doon sentir bëre sama bopp toujours dama ko doon sentir xam ne man instant bi nii maa ngi bëre te di bëre ñu mën a bëre nag. parce que xam nga ne Rong Mbalax neexul daan te dafa def lutte gréco dafa mën a bëre Zal tamit bi ma fa yóbbu la même chose ñu yor ay entraîneur Mbaye Gueye nga fa Alsaan Jaxate nga fa Ibra nga Ibra Mbaye nga fa Moustapha Gueye nga fa loolu la quoi. mais après boobu boo la ñu daan tàggatee te dañu doon tàqale ñoo doon entraînement sax fajar. sama gaañ la sama waay la lool. boo ñu fekkoon tey da naan est kon ndekete ñi ñi mel na nu nii sax maak moom. Mhm. waaw léegi après nga mhm. ñooñu Fass laa bëree ñoom. Euh, dama bëree ak daan ko jël jumboori daan ko jël daam sugeer daan ko. Mhm. waaw jël ëmm seen. sa premier grand combat yaakaar nga. man ak jumboori la. Mhm. fan la woon man nag yàlla daf ma dimbali. bëréw ci beneen stade lu mooy Iba Mar Demba Diop sama combat yëpp waaw grand combat ñu ngi ma fay cent cinquante mille lañ ma fayoon waaw ma bëre daan ah nag déclassé nag commencé waaw boobu sax xam nañ ma ah, ñu gën ma xam waaw ñu gën ma xam waaw ñu gën ma xam waaw waaw xam nga Eumeu Sène mm, dafa nekk mbër boo xamante ne nii dafa mbappat man tamit ma mbapat ñu daje mbappat lu bari man ak moom. demandoo équipe nationale tamit. waaw dem waaw si. ñoo fa nekkoon man ak Rock Mbalax Eumeu Sène Antoine Bakhoum euh, Yékini euh, Mbodj Diarra ak euh, Moussa Ponto ak Cheikhou Diène ñun ñoo ñoo ñoo fa nekk ndawoon. Mhm. ak waaw mhm. ba nga fa demee lan waaw di entraîner ak ñëpp rek ñuy entraîner bu ñu xëyee daw 8 kilomètres aller 8 retour muy 16 kilomètres. Mhm. entraînement yu tar discipline bu normal parce que amul euh, doo foo doo ree xanaa ngeen pare entraînement su ngeen parewul daal dara du am mooy bu ngeen paree nag mun ngeen a kaf. nga bëri ak Eumeu Sène sa combat ak Eumeu nekkoon combat boo xamante ni. am waaw sama combat ak Eumeu Sène dafa nekkoon combat di siècle parce que ku ma xam xam ne bërekat laa ku xam xam Eumeu Sène xam ne bërekat laa muy Fass Pikine te dër bi dafa yàgg foofu dafa yàgg comme Cristiano ak Messi rek bu buñ dajee terrain noonu la noonu la doon mel Fass ak pikin noonu la daan mel te loolu day neexal làmb mais yooyu rival yooyu amatul mais boobu combat boobu noonu dafa doon combat bu doy waar man ak Eumeu Sène bëre nañu ba nga xamante ni sax dañu mujj sax daf ma fan man ma fan ko parce que dafa xam ne kii ndaanaanal bërëkat la waaye tamit dama koy nangul ndaanaanam moom. Mhm, torop mën a bëre lool. Mhm. waaw combat bi euh, dañu dañu ñëw tous def suñu yëpp arbitre sifflé man ak moom te boobu ëmma seen xam nga euh, mbëru mbër bu yëngatu la dafa mën a am bu dafa am moom dafa am caacu làmb dafa am bi yëngatu waaw dafa am ab yëngatu abi sifle ma bàyyi ko combat bi xam naa ne bu ma ko bàyyi combat bi rek day diriger te man loolu laa bëgg loolu laa doon wut mu diriger combat bi ma def samay déplacement boo li ma amoon ma bëgg ko mu dep mu mu yëngatu rek ma ne tekk déglu ko mu répété gauche droite gauche bu kuy jeexee ma ne ko sirip jël ko teg euh, téye ci ngem li ceinture deuxième ngem ba mu dëgër ma teg ko poitrine rek fu doog moom yóbbu góos mu yaakaar ne góos laa indi ma indi ko indi ko ci kanam mu teg quatre appuis waaw mais comme làmb jooju noonu metti bi mu metti woon parce que bi may dem làmb ji dañ mënoon bul doo bëre dama amoon blessure dama amoon benn niveau ci tànk père Mbaye Gueye ñëw na ma dañuy renvoyer combat bi ma ne ko man damay dem bëre ji de mu wax wax ma ne ko père mun na maa bëre mu ne lii mënoo ci bëre parce boobu bu may wàcc lal bi sax mënuma mënuma suur dimanche bi may wàcc lal bi bi may wàcc sax pour kii mënuma kii comprimé lañ ma mujj jëndal sama grand bu baax daam si la moo ko jënd xam nga sama grand bu baax dal ma doon jàppale ci lu bari après ci laa mujj dem bëree am victoire. mais waaw xam nga loolu ci gëm sa bopp la bokk nit ki am na foofu boo fa tolloo ci làmb am na yoo xamante yu ndaw yoo xam ne warulaa yàqal bés bi aussi tamit da ngay xalaat ne am na ñoo xamante ni ay amateur lañ. ñooñu làmb jooju da leen intéressé woon loolu la quoi. nga daan Eumeu Sène. waaw soppat yokk. waaw koppar mhm. dama ko ne daan na tekk xam nga ma ko daanee ne tekk après ma jëli kële daam sugeer non astafurlah ma jël kii euh, langsaane. Mhm. bëri langsaane. waaw langsaane dem ba Iba laa ko daan tamit. Mhm. sama grand bi moo ko tegoon daam si la. Mhm. après euh, nga bi ma daanee Langsaane ba pare après nag bi ma daanee Langsaane ci laa jël booy Kayre. waaw waaw. waaw xam nga xam nga xam nga sama combat booy Boy Kayre Boy Kayre ci laf ñoo bokk laf bu ñu dekkee laf bi ñoo ko bokk quoi parce que moom mu ngi dekk euh, vingt cinq man maa ngi dekk rue boobu. te lépp Medina la. mais kusum lañuy ñuy mais Kayre suñu combat bi mu taxawee man dama doon entraîner entraînement yu métti parce que xaman naa ne Kairé yombul daan mais boobu te naa quoi boobu lu keeku naa gis naa yoon bi quoi yaa ngi dégg après nag ma préparé booy kayre normal sérieusement ànd ak ñi ma war a àndal xam nga bi ma ñëwee stade tamit ñu def nañ daan def rek Demba Diop lañ bëree man ak moom Demba Diop laa ko daan ak dafa suuf man tam ma bàyyi ko combat bi xam naa ne. grand la sama mag la mais dama naan gërëm dama ne grand bi dama ko maa ngi ci biir combat bi ah arbitre bi maa ko naan grand di nga bëre ba géntale tey. waaw moo xooloolu ñi mu àndal waaw parce que euh, ki mu àndaloon euh, kii ay miiru la àndaloon yaa ngi dégg mu ngi nekk fii nii ci fi ñuy jaay or bi la nekk quoi ma ne ko grand mun ne ma ne ko lii daanu ma yore benn nii quoi ma ne ko lii daanu ma de da ngeen di bëre ba géntale tey tey rek ñoo ma bàyyi koog làmb ji. def samay déplacement door ko gauche déglu ko xam naa day ñëw mu def gauche droite ma jaar ci kii bi for tànk bi bi ma foree tànk bi yëkkati ko mu bañ ma roof ko ca xabal mu bañ ma keppaat tànk bi jog ko biceps si ko daan ko tamit. waaw parce que boobu man maa xew. ndakaaru fii. Uh-huh. fii loolu laa kay dama koy wax bu baax parce que boobu mën naa ne lu tàmbalee ñaari tali. ñaari tali boo nee Zal mbay Diouf ngay wax parce que maa nekkoon liet naam. Mhm. <laughs> ma daan Kayre bi ma daanee Kayre nag ci laa defaat revanche ak Eumeu Sène. Mhm. Mhm. aller retour waaw aller retour la. léegi revanche bi. ñu parewaat. bi ñu parewaatee ñu ñëw sama gars yi wax ma ne leen noo jarul conseil parce que kii xam naa ko xamante nañ revanche bi bu ñu ñëwee ñu ñu bëre bëre bu métti. ay fàqatante mbootu loxo jargandalu xam nga. moom ma ma dëbb ko col di xaar mu yegg si pour ma def cour courance pour boot ko mais xam nga comme daanaan la bërëkat li ma foog da koy foog léegi tamit moom mu yónni ma lii rek xam nga tegal ma sées mais daf ma tegal sées ma yàq sées bi nan laa yàq sées bi mooy daf ma tegal sees ma jàpp ci ñaari conco yi lem mu lemook moom ànd ak moom ci sées bi moo tax xam nga sees bu ñu la ko tegalee nga war a jaaxaan mais dama teg si dama teggi sees bi baraake ko moom mu ñëw teg ans man ma ñëw def quatre appuis jox ko victoire noonu la combat bi demee ko après pare ci Eumeu Sène ma pare ci euh, Eumeu Sène ma jënn ma jënn jël ki nga xamante ni nag mooy dañ def gi su lay dopp. Mhm. nga xam ne 2 mètres cinq lay def. mu nekk combat bu doy waar bu doy waar sax. waaw mystique lool mais lay dopp. te après sa combat ak Souley Diop après am na lu bari. waaw waaw sa combat ak Souley Diop mën nga ko jël nga jógee ci Eumeu Sène mu daan la. Hmm. nga jël Souley Diop pourquoi euh, choix boobu. ak Souley Diop instant boobu fu mu tolloon. waaw parce que mbër boo nekkee mbër mën nga jóge ci combat boo xam ne combat soog la nga jëlaat combat soog parce que combat soog bi la bi bi ñu la gañe noonu soo jëlaatee combat soog boo ko daanee euh, liñ la daanoon fa lañ dañ koy fàtte. Hmm. te waaw sama combat ak jël naa ko muy peese cent dix huit kilos ma nekk quatre vingt treize kilos coow li bari mu nekk deux mètres xam moom euh, gis nga ko ni mu def gars yi mu daan sama xarit Oussa daan Abdou Diouf deux fois aller retour xam nga ma jël ko bi muy daan Abdou Diouf maa ngi esaat ma ne sama benn grand bu ñuy wax Moussa Diouf maa ngi koy nuyu ma ne ko grand mu ne ma ne ko Souleye bu ñu ma ko joxee dinaa ko daan. mu ne ma yow xanaa da ngay xaru fule foo koy jaar heureusement ma ànd ak sama benn copain nag ñuy ñuy ñuy voyagé quoi ngunda maa ngi ànd ak moom ngunda ñuy voyagé quoi mais dañu ñëw ci auto bi bokk ak su lay oto bi quoi mais boobu combat bi taxawagul. waaw ñu dox combat boobu ñu ngi koy dox. non boobu doxaguñ ko sax. Ah. boobu doxaguñ ko mais après dañoo dem bi ñu demee ñu dem côté Bambey quoi man ak sama gaan bi ñuy sangu ji quoi. Mm-hmm. moom tamit xam naa da doon sangu ji quoi mais bokkuñu woon fu ñu jëm. dafa après léegi. bi ñuy ñib siwaat tamit ñoo bokkaat sept places. bi ñu ñëwee nag après teguñu ci ay fan yu néew rek ñu dox combat bi. combat bi taxaw mhm. coow li bari trop. Mhm. parce que boobu dafa daan sama grand Pape fay daan Abdou Diouf aller retour daan usa Sow euh, daan suñu benn grand da ko door mu daan sox kooku lembe lamb ji daan ñoom basokaay ñëpp léegi na daan ma jël ko. waaw parce que parce que combat boobu dama cee entraîné yu metti ci biir entraînement yi dama doon yéeg din lu bari Pape Faye yàlla na ko yëlee rek moom laa doon àndal din ma ñëw stade moom Ikri Sine Saalum yëpp dar ko parce que xam nga Ikri Ikri Sine Saalum dañu nekkoon benn bopp ñoom père Ibou Ndafayin ñoom euh, Ibou Ndafayin ñoo ko dar ak ñi nga xamante ni daal ñoo nekk Ikri Sine Saalum ay ñoom Simel Fayin gaa yëpp ëmb ko ay ñoom père Tombe Seen ñoom ñëpp ñoo ëmb sule ay ñoom Daouda Doob ñoo ko indi woon keroog mu nekk combat boo xam ne combat bu ma marqué sama carrière la. parce que boobu génn naa lu keeku naa nekk booy boo xamante nii booy bu am talent laa ci làmb. waaw mais boobu maa ngi ci saal ba léegi. force tranquille ma nekk koo xamante ni ku naqaree daan ku gëm boppam ku mën li muy def parce que nit dañu ne sénégalais boo ne ay diw dem boo boo mënee dara da nga ko wax boo ko waxee dañ naan waroo ko wax mais nit li nga mën danga koy wax soo mënee fecc sax neel damaa mën a fecc. loolu mooy yoon waaw ci loolu ci gëm sa bopp la loolu amul lu ci nekk amul dara lu ci nekk. Mhm. nga bëreeg waaw Souley dama bëreeg moom arbitre sifflé ma fat gauche bi ma ma fët fët droite bi ba pare di xam naa goos bi goos bi du ñëw ma fat goos ba pare contrôler droite am parce que noonu lay xeexe day def gauche gauche di indi droite ma tëj bëre bi tëj xeex bi mu déclenché ma ne ko sirip jàpp ko ma ko jàppee mu def action bi mu defoon. Euh, Ousa Sow la ma def daf ma daf ma kot kotum biti añ ma ba ma jeex tàkk mu kot ma kotum biti ma mais am naa ngembali ma bàyyi ba mu kot ba jeex ma déchargé ko mu def trois appui jogaat mais dafa jogaat dolli loolu defaat action bi la même chose. waaw waaw. bi mu defaatee action bi la même chose ma bàyyi ko ba mu ba mu ba mu defaat ko ma dem naa ba taxawee point de pied mais boobu dama doon entraîné loolu ma taxawee point de pied nag ci laa téye ci ngembali déchargé ko xam nga ma la mu ñëw jaaxaan ma yéeg ci kawam muy ko bu ma marqué ci sama carrière. Mm-hmm. Mm-hmm. maa ko daan waaw. Gaston moo ko tegoon.